conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf yéenekaay yépp ñu ngay àddu jëmale ca màggalub Touba 2020 réew mi quotidien dañu xamal ni kon police nationale am na ci taxawaay ndax lu jege junni ak ñaar téeméeri doomu aadama la ñu daal di teg loxo ci jëf yu ñaaw yu ñuy def ci dëkk bu tedd ba directeur de la sécurité publique ci am ndajeek taskatu xibaar yi xam la ni lu toll ci ñaari junni ak lu tekk ni ay policier la ñu daal di yóbbu foofee ci dëkk bu tedd ba ngir askan wi ak ñetteel bi ànd ak covid 19 bi yéeni kaay network bi di lim tamit ay gan yi nga xamante ne Touba mu ngi leen di dalal bokk na ci ñoom ñi fës lool ci secteur privé bi rawatina Mbagnick Diop mi jiite mouvement des entreprises du Sénégal démb la ko xalif général kullu murid Serigne Mountakha Mbacké daal di dalal moom ak délégation bi mu àndal lu mooy li leen kilifa gi ñaanal sëriñ bi rafetlu na bu baax taxawaayub njiiteel MEDES ci liggéeyam ak li muy indil réew mi l'observateur ñëwit ci màggalub Touba bi yi nga xamante ne moom lañ koy amal jëmale ci jamonoy mbas mi suñu naataango yi di xam ne ni édition ren ji moom dina am lu bëri li nga xamante ne daañu ko ci soppi ndax lu jëm ci respect mesure barrières yi moo tax kon li mu askan wi ci cérémonie officielle bi naka noone anam yi nga xamante ne moom lañ ko doon amale loolu yëpp daañu ko soppi yéenekaay bi dikkaat na tamit ci nataalu soxna Fatoumatu Al di kenn ci soxna Cheikhul Khadim nekkit waajur bu Abdoulahi Mbàkke ñu gën koo xam ci borom ndindi di xam ne ni kon sëriñ bi ci boppam sekkoon na lu rafet ak ki nga xamante ne dafa famille yonente bi ki warul bokk ci màggal gi muy soxna Aida réew mi quotidien di ñu xamal ni moom soxna Cheikh Béthio Thioune bi préfet bu mbuur moo ko lank ndaare ci li nga xamante ne namoon na ko amal ca Médinatoul Salam moo tax waa Grand Place di ñu xamle ni Aida Diallo ak ay cantakunam buur moo leen dàkk ñu daal di koy defee seeni kër yéene kaay bu groupe Walfadjri bi di xamle ni kon biire mooy beneenub tere bi nga xamante ne def nañ ko soxna Aida Diallo gannaaw li mu naroon a amal ca Ngaabu ba ñu ko ko bi ci boppam dafa sukkandiku ci lu ñu namm dajale mbooloo foofee ca place publique ba bokk na tamit ci lu ko waral wàllub sécurité ak lu ñu njot ni mënees na am ñu leen infiltré foofu foofee ca diwaanub Touba enquête di xamal défi yi nga xamante ne moo war ngir ñu daal di réussir ab màggal ba mucc ayib yéenekaay bi di ci lim ay jafe-jafe yi nga xamante ne war nañ koo fexe ba saafaral muy ñàkkum ndox mi nga xamante ne nemmeeku nañ ko foofu bokk na ci tamit réseau ak fuite d'eau yi nga xamante ne dañoo jàpp bi leneen tamit lu ñuy xaar ci comité d'organisation bi ak ñi di FDS yi mooy fexe ba taalibe ci seen wàllu bopp daal di mesure barrières yi Ila Touba ci jamonoy covid noonee la ko Sud Quotidien daal fësale ci xëtam bu njëkk yéenekaay bi di xam ne takk der yi caaxaanew ñu ko benn yoon opposition bi bëggut a caaxaane coow li topp Souleymane Teliko ci réew mi quotidien ñu ñuy xamal ni FRN taxaw Sénégal na ne LD Debout ñëppay ñaawlu lu ñuy ni moo ni état ci boppam moo namm faagaagal taliko ak li muy dugal loxoom ci doxalinub magistrature ci mim réew libération di kat ci coow li juddu ci biir magistrature bi ci boppam Souleymane Teliko indi tontu lu weex kat jëmale ko ci Aliou Ndoye njiital UMS di jàmbaaramu tuuma ki mu jàppe woon ni xaritam ndax dafa gis ni liggéey bu salte lañu koy defloo ki def lu ñaw ba yoon teg ko gët mooy député maire Khalil Ibrahima Fall mu ñuy tuumal ni dafa akimoo lu toll ci 250 hectares foofe ca l'observateur di xam ne ni maire bi ci boppam boo moyul daañu ko inculpé ci loolee ñu koy tuumal te mu jur xëccoo bu rëy ci mairie gi mu nekk xëccoo la ñu nemmeeku ca port autonome bu ndakaaru li ko waral mooy emprunt obligataire bi nga xamante ne daal dinañ koy sumb Dakar Times di ñu xam ne ni kon bailleurs yi ak kàngame ci seen wàllu bopp ñoom ñépp ku ci nekk am nga ci ay mbébét mbay Mbaye Niang Ismaïla bu Boulaye Dia wala Habib Diallo may fexe ba am club ba ñu dem stade yéene di xam ne ni kon ay waxtu kese moo des ngir ñu daal di tëj mercato bi les gaynde mu mel ni ci njàkkare la ñu nekk seeni naataango yu nekk seen club di jongante ba Aliou Cissé tàmmu leen tey jii lañ leen di xaar ca diwaanub Rabat lu toll ci ñaar fukki gaynde ñoo war a door wàccaay gi foofee ca diwaanub Maroc ñeneen ñi door seen wàccaay muy Bombardier ak Balla Gaye numéro 2 suñu làmb mooy xam ne ni Gaston mbeng taxawal na combat revanche goge ci samedi gi mu des rek ngir ñu utal ko ab bis. Conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen